kontaan trop ci ñew ci cérémonie bi nga xamanteni sama grand frère maître euh, muy Djibril War maire Biscuiterie yi ñu ci invité ñu ñew téwé ko ak euh, le ministre Makhtar Ba le ministre des sports ak ki nga xamanteni moy madame le maire Soham El Wardini euh, man en tant que président de la commission communication de la ville de Dakar ma ci ak madame le maire mu nekk retrouvaille ñu fekk fi suñu grand Amadou Ba nga xamni fi la juddo këyitu terrain bi yëpp jaaroon ci loxom depuis impôt domaine ba bimu mu ministre des finances euh, tay mu nekk lu sotti ñuy inauguré terrain bi ma contane trop vraiment nekkon ak samay grand Amadou grand Doudou Wade le maire Djibril Wade madame le maire Soham El Wardini ñëw ubbi qui muy lu neex pour jeunesse su Grand Dakar ñaari télé ak biscuiterie dans les prochains jours allons ci def communication on va faire une déclaration incha allahu rabbi comme nous l'avons vu avec euh, notre base à Grand Dakar ñaari télé nous ñu fekk nous ñuy ubbi terrain bi lu ñuy wax ak ñoom nous ñuy jëlandoo décision bi ci lañ koy wax la démission elle est actée mais incha rabbi nous ci communiquer incha allah.